c'est monsieur Babacar Dembélé adjoint au maire di leral rek li ñu leral moy opération bi xëyuñu xey rek def ko depuis mois de mai ñu ngi koy préparé ak ñom acteurs yëpp on a tenu beaucoup de réunions beaucoup même ba bi ci muju moy biñu waré japp la date ñu convoqué euh maire yi acteurs yëpp ñom ñëpp ñu ngi été sur place les tabliers les marchands euh, ñom ñëpp seen i délégués seen délégués yi ñoo ñëwoon on a discuté avec eux pour wax len lan la ñu nar te li ñu nar kon ñëpp xam nañ ko marché bi nit ñi mënatuñoo dem mënatuñoo dikk donc nan la ñuy def pour ñu fexe ba bàyyi yoon yi nit ñi mën a jàll marché bi mën a féex ñëpp aussi rafetlu loolu mais ñu ñaanoon ñu ni bi ñu waxtaanee ba d'accord li ñu mujj d'accord mooy ñoom délai bi délai bi dafa xat parce que boobu on avait retenu une date moo doon le 15 d'abord ñu ni fekk le 15 dafa gàtt ñoom li ñu ñaan foofu moy nañu repousser date bi pour que ñom ñu mëna préparer kon ki ñaan repousser date kon yegna et aussi d'accord na ci ben principe maintenant ñun leen d'accord comme loolu ngeen ñu ñaan dinañ waxtaanaat kon bàyyi le 15 bi pour poussaat date bi bi ñu waxtaanee ak maire waxtaanee ak équipe bi ci lañu d'accord pousse date bi pour def ko le 18 pour mayat len yenen 3 jours supplémentaires pour ñu mëna préparer wu kon yëg nañ ko d'accord nañ ci date bi mo doon seen problème ñu poussal len ko yokkoon len 3 jours donc ñoom ñëpp ils étaient au courant nii ñun dañuy def euh, liggéey boobu léegi nag lan lañ leen réserver ñoom ñun ñoom suñu njaboot la ñu bokk ñun ñëwuñu pour yàq dañuy ñëw pour defar mais aussi ku ne situation bi booy defar aussi dangay ngay croiser les bras di xaar ba fu ngay wuti ngay am foo koy doo ko def doo ko def ku ne ñu xam ne ni ñu sommes dans l'urgence urgence boobu nag la ñu bëgg a ñu ngi waxtaan di seet. ay site yo xam ñu ngi waxtaan ak ñenn pour set yan nan lañu mëna def pour que ñenn ñu nekkon ci yenn situation yi ñu seen leen di régler loolu moom suñu responsabilité la du yëkëti nit ki rek pour yëkëti ko mais dañ ko yëkëti aussi xalaat fe xamni ñu ne dinañ fa yóbbu mais li wóor te wér situation bi mairie bi du moussa sétane taxaw ci li pour diko sétane comme ça affaire bi mëna continuer ni donc avec les autorités centrales waxtaan nañ ci ak ñom le préfet le sous-préfet le gouverneur ñun fi ñu wara jaar yëpp jaar nañ fa avec les sommations euh, et comme Nico euh, le l'adjoint euh, vert waxé légui on a dañu génne ben équipe avant-hier ñu and malgré amnañu sommation malgré def nañu ben auto buy wër di léral dugg ci quartier yëpp mais jëg ni ñun responsable yi nañu duggaat ci marché bi dem ci cantine par cantine pour léral leen man mi ma jité won délégation bi de 15 h à 19 h ñu ngi won ci biir marché bi ku ne taxaw nañ sa place expliquer la li ñu bëgg def wax la nga rafetlu ko man sentiruma fenn ku ne on a lancé des sommations également il y a une équipe qui s'est déplacée au niveau du marché et a continué à faire donc de la sensibilisation vous tous donc vous vous, l'avez constaté on est allé donc vers la presse, on est allé donc vers les médias. Il y a une voiture sonorisée qui a sillonné donc tous les artères donc, euh, euh, de la ville de Thiès donc, pour informer les populations et aussi donc, les, les commerçants.